summa ilayna wajahal xitaaba takarruman wa anfusan ataaba fa qumtu qaa'ilan ma amtisaali amri jamilin jalla am misaali yaa aamiran bi an nusalliya ala nabiyina muhammadin baabil ula ilayka minni busharun muqaddama fi xidmati lasi lxadimu qaddama subhanaka laa cilma lanaa illaa maa callamtanaa innaka anta alcaliimu alxakiim laa hawla walaa quwwata illaa billaahi alcaliyyi alcaziim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli wajcal kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arshida assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki Touba ak li ko wër noo ngi nuyu ñëpp noo ngi ziar ñëpp noo ngi baalu àq ñëpp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla sunu borom tabaaraka wa mu baal nu te jéggal nu nangul nu mboolem jaamu gi koy jaamu lépp te nangulaal la leen mboolem li nu liggéeyal ak naa Ahmad al Xadim xaadalahu llahu maxtaara la bokk yi noo ngi am mbégte mu yaatu di teewaat ak yéen ci jotaay bi lañ ngir euh, liggéeyal sëriñ bi jaamu fi sunu borom tabaaraka wa taala roy ko ko itam ndegam moom noonu lu doxe woon lépp lu mu mas a yëngu rek ci ab yëngoom ak jaamu la ci sunu borom tabaaraka wa taala loolu la ci fas loolu la ci jublu noonu la doon doxe waaye daf ko doon liggéeyal sangam ba alayhi salaatu wa salaam ibaadatan laka wa xidmatan lahu li wàcci man al wara faddalahu wax na ko ci téeréem bi tudd nooru daare ni nga xam ne mi ngi ko liggéey ci 1925 ci njaarim dëppoo gën a àdduna soxna Maymunatu soxna Maymunatu doomam ja nu gis mu dox ci lu ëpp li mu ci wax te bu nu demee ci ay téere mu bari ca lool su ko defee kon bokk yi bu nu ñëwee ci liggéeyub sëriñ bi dañuy fekk lépp rek ci alxuraan lay baasewu di daw ci toolub sunna itam <clears throat> ni mu ko waxee di wax ne liggéeyam lépp du génn alxuraanul karim du génn sunna itam ndax it eh, nee na loolooy ab toolam jéetalu di la ne teg ko ca bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi saxabin mawruusi kon mbokk yi loolooy tax waxtu wu nekk rek nuy daw ci dawukaay boobu di ko roye bu baax a baax ngir liggéeyal ko ci waaye ngir jaamu ci sunu borom tabaaraka wa taala nu gis itam muy xiirtal jaam ñi ñëpp ci sunu borom tabaaraka wa taala waaye di ko roye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa ngam ba ilallahi bilqur'ani wa sunnati allati hadatni saraftul kulla wal qalbu xaashi'u dafa rëgët ñëpp jox leen ndigal ne jëm leen ci sunu borom tabaaraka wa taala bokk yi jaam ñi fëx mel na xamuñu ci yoon wu yi jaar mu ne yoonu yàlla alqur'an la alqur'an mooy yoon wi def coow jëm ci sunu borom tabaaraka wa taala sunna itam moo koy joxoñ nee na man mii di wax ak yéen moo ma gindi ba tax ma mel ni ma mel ngeen di ma topp hadat nii saraftul kulla wal qalbu xaacha kon mbokk yi dañuy seetlu sëriñ bi mbooleem téere bu mu liggéey ci lislaam baa xasida gu mu taalif su dul rek lu muy bàyyi xel ngir duyee ci suñu waxtu fecc la ci fecc la ci suñu waxtu bañ cee sànq benn waxtu di ci noppaloo ni ki ma ko digale taalibe yi dañuy fekk ne dafay liggéeyal lislaam ci ñetti pàcc lislaam yëpp ci nit ki nu muy gëmee sunu te tabaaraka wa taala ak nu mu koy jaamu ak nu muy sellale njaam gi loole danu koy fekk mu liggéey ci téere yu bari téere yu bari téere yu bari <coughs> waaye bu ñu demee ci tasawur sixaar bi nga xam ne moo njëkk ci téere yi nga xam ne moom la njëkk a teg donte am na yu ko jiitu yoo xam ne daf ko liggéeyoon waaye bii moom def koo jiital ngir ñu war koo jiital cim njàng daf ko wax ci biir sax ndax boo ñu demee ci biir dañu fekk mu naan hada wa da nazamtuhu muqaddama urjuusatan naafiatan mukarrama téere la boo xam ne way naa ko liggéey naa ko muy téere bu ñu jiital wu am njariñ nag tey jariñee waaye nag waaye nu rajas laa ko laa ko way ngir mu yomba jàng di téere bu léegi nag li ñu bëgg wax foofu mooy téere boo xam ne daf koo jiital muy téere boo xam ne wax dëgg dafay jàngale li nit ki war a gëm ci suñu borom tabaaraka wa taala ci fànn bu gën a gànjooram ak nit ki lu mu gën a lu mu war a jaamoo suñu borom ak it nu mu koy nu mu koy nu mu koy rafetale ñu gis loolu mu liggéey ci téere yeneen tasawuru subbaan ñu gis mu liggéey ci li téere yoo xam ne fiq la ko jagleel al jawharu nafis ak yeneen i téere yeneen i téere wax naa léegi ne su weesoo téere yooyu yeneen téere xasida yi yu ci bari nit ki lu muy feccale ay waxtoom la nga xam ne taalibe yi ci xasida yi lañuy ñu noppaloo bu ñu defee seeni wareef jaamu sunu borom tabaaraka wa taala ci ay forota bu ñu lu ñu noppalu ci ay sunna sunna yi mooy lan di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn yoon farata la waaye lu ca toppati na la di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sunu boroom tabaaraka wa taala di ko bàkk di ko kañ ak di ko tàgg di bàyyi xel sunu boroom tabaaraka wa taala li lépp mu liggéey ko loolu daf koy liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu moo nekkoon waaru yonent bi sallallahu alayhi wa loolu la sunu borom digaloon yonent bi sallallahu alayhi wa mu ñëw ne ko dànn roy ko ci lépp ba tax mu liggéeyal ko ci lépp ndax bi mu ko waxee ne ko sama léppay ay liggéeyal sa léppu loolee na mu ca jëfee moo gën a gàccaal na mu ko waxee bokk yi nañ ci bàyyi xel bu baax bi mu ñëwee roy ko yëmul ca roy ko waaye dafay julli ci moom ne ko sunu borom tabaaraka wa taala diglee di ko tàgg boole ko ci ab liggéeyam di tàgg ay bokkam di tàgg ay saxaabaam di tàgg mbooleem koo xam ne dafa daw ci dawkaay boobu jaar ci jaarukaay boobu ba ci mboolem koo xam ne ab jullit ka ak foo mën a jaare ak foo mën a naane dafa lay dugal ci biir xanaa yaa dul bàyyi xel wala yaa dul dégg dégg am njàngaleem waaye sëriñ Tuubaa xaadalahu la maxtaara lahu dañuy seetlu ni mu waxee ne sama léppay màggal sa lépp tey ëllëg tey bu soobee sunu borom tabaaraka taala du ma ci yox yox yi du ci ragal du ma ci dellu ginnaaw bokk yi gis na ne noonu la ko defee yu bajjilu kulli kullakal yawma xadin wa insha rabbi la uraddaxal zaawan yi mbokk yi kii mooy Serigne Touba xaadalaxullahu muxtaaralahu su ko defee nag nun ay taalibeem nga xam ne sunu borom tabaaraka wa taala moo nu baaxee rek ngir nuy jaar fi mu jaar ndegam mënuñu ko nu koy roy fi mu jaar jub lu ñu cee wax ci ay jaar jaaram waaye waaye ni mu jaamoo sunu borom ba joxat ñu yoon wi te mooy lan jaamu sunu borom piir tabaaraka wa te bañ ko warax waaye roy ko ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sunu jëm bàyyi ko ca loolu ñu jëm a nekk dëggi dëggi taalibe loolu nag mooy lan bokk yi mooy rafetal mooy sàmm teggin ci lu nuy def di ko defal yàlla tabaaraka wa taala lu yàlla moom nu bàyyee ko ko jagleel ko ko lu ku dul yàlla moom ñu sàmm ci teggin bu baax ndax sëriñ Tuubaa xaadalahu llaahu mataaralahu yàgg na jàngale teggin ci façon bu nekk borom be ndax ju xadal xaaj daan wax naan ay teggin de sa diggante ak sa borom ñeent rekk la mooy sa borom tabaaraka wa taala lum la digal na nga ko def wante lum la teree na ko bàyyi xéewal yim lay mu lay xéewale itam dee ko sant nat nattu yim lay nattu tam dee ko muñ yooyu ñeent rekk mooy teggin yi dox diggante jaam bi ak sunu borom tabaaraka wa bu nu koy jaawale njàngaleem sëriñ Tuubaa la xaadalahu su weesoo mu ne teggin yi dox sa diggante sa moromum jaam ñett rekk la bi ci njëkk mooy ku yàlla teral na ko xàmmee te teral ko ngir jëmmi sunu borom tabaaraka ko taala mi ko teral ku yàlla jay nanu ko xàmmee te jay ko ngir sunu borom tabaaraka wa taala moo ko jay ku dul ñoom ñaar nu maandu ca bu nu ci am lu ñuy wax mbaa lu ñuy jëf bokk yi lii ku ko sàmm danga mucc da nga mucc le te teggit bokk yi dafa am solo lool ci doxinu ab jullit rawatina ab taalibe nun ñëpp umpale umpale wuñ ne bi daan na wax ne ay teggiin day def ne saa yu jógee gudd fan nekk dooma fi bàyyi su ko defee aljanna ne leen ma teeru leen teral leen kon mbokk yi teggiin day tax a dem aljanna day tax a gudd fan loolu lañ ciy déggee. daan na wax itam ne ay teggin muy safaanu teggin muy ñàkk teggin saa yu jógee gàtt fan nekk dooma fi bàyyi safaanu aljanna ne leen ma teeru leen dalal leen waxin wi sax da nga ko ci xame mbokk sëriñ bi xaadalahu laa maxtaaralahu dafa feesoon dell ci ay teggin maanaam njàngale mi waxin wi sax daa fees dell ci teggin ay teggin saa yu jógee gudd fa nekk dooma fi bàyyi àjjana ne leen ma leen teral leen waxin woowu bokkut ak safaanu teggin saa yu jógee gàtt fa nekk dooma fi bàyyi safaanu àjjana safaanu àjjana sëriñ bi noonu la doon waxee ne leen ma teeru leen dalal leen safaanu àjjana du terale dafay dalale kon bokk yi loolu ñu bàyyi xel bu baax waaye sëriñ Tuubaa xaadalahu laa maxtaaralahu bokk yi njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la doon jàngalee ngir liggéeyal ko ko ndax danoo gis ne li lépp ñuy wax hadis la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon na ko ci jotaay boo xam ne Seydina Omar radiyallahu taala anhu moo ko laajoon moo fa teewoon doon nettali hadis boog laa ba a wax Jibril alayhi salaam moo fa ñëwoon laajoon ko laaj yi loolu dafay gudd wante ñu bàyyi xel ne ñetti pàcc lislaam yi ñetti ceeri lislaam yi loola bokk yi nanu koy xam te ko xàmmee bu baax a baax sëriñ bi ñëpp la ci boole muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ginnaaw bi ñu jàngee xadis boobu noonu ngir bañ a sàmmonte guddal gi dañuy ñëw fi nga xamee ne sëriñ bi dafay wax ne mbooleem koo xam ne dangaa bëgg a sàmmonte ak jaamu sa borom tabaaraka wa taala maa ngi ñaan sama borom tabaaraka wa taala sama téere bi may liggéey muy tasawudu sixaar te eggaguñ ci yeneen yu guddal ya sama téere bi ba sàmmoonteeg moom jàng ko dana nekk sa texe ak koo mën a doon dana nekk itam téere bu lay wommateeg la ci yoon wa gën a jub wa kawnu hada nasmi qaidan ila sabilihi al aqwami kulla man loolu bokk yi mooy inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam karim mooy wommate jëme ci yoon wa gën a jub kon loolu lu mat a xam la lu mat di bàyyi xel la bu baax a baax a baax ngir ne sëriñ bi dafay bàyyi xel kii doog a jóg ak ki nga xam ne itam ma nga ca yoon wa ak ka nga xam ne itam jàpp na ne wax dëgg dem na ba perte ay biram déedéet Serigne Touba xaadalaxulla maxtaaralo dafa doon njëkkanteeg adduna di njëkkanteeg seytaane di njëkkanteeg bànneex di njëkkanteeg bàkkan njëlbeenu tasawudu saxaar boobu sax dañuy fekk bokk yi muy dénk ndaw ñi di wax naan yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk na ngeen bàyyi xel xam-xam rek na nekk seen seen ité ak njub xam-xam ak njub dong na nekk seen itte bu leneen nekk seen itte su ko defee nag nu bàyyi xel nu ndaw ñi ci ne loolu moo war a nekk sunu waar waaye leneen warut a nekk sunu waar ndax it lu dul xam-xam ak njub pokk yi moo ni teg li nuy yu nekk waaye bu dee xam ak njub mooy laltaay bi nga xam ne lu ñëw tege ca loolu taxoon sëriñ bi doon wax ne yéen ndaw ñi maa ngi leen di dénk bu leen am yitte bu leen soxlawoo lu dul ak njub te na ngeen ko teg ci benn ci laltaay bu bu leer te mooy xam-xam foofu bokk yi li koy gën a leeral mooy kuy jaamu sunu borom tabaaraka wa taala ci fànn bu mën a doon ak yoon wu ko mën a jaarale bu ko tegu ci tegandaayu xam-xam bokk yi loolu loolu du jaamu leneen la jaamu sunu borom tabaaraka wa taala di ak njub xam-xam moo koy lal moo taxoon sëriñ bi ne yaa ayyuha sibyaanu laa tastaxilu anil xudaa bil xuluumi staxilu bu dee ndaw ñi lay waxal nag max ñi mag ñi waxi noppi mu teel noo leeral sunu yitte li mu war a doon itam mooy lan ginnaaw xam-xam mooy nanu am itte ci jàng ak mokkal waxtu nekk nuy mokkal rawatina mokkal tu tànk yi doo ko jóg nanu fexe ba jàng alxuraanul karim ba mokkal ko loolu lu am solo la bokk yi mooy meññetu xam-xam bu mën a doon ëllëg xam-xam boo xam ne bëgg ko jariñoo fexeel ba mokkal alxuraan te jaar ci jaarukaay yi ëllëg sa mokkal gi dina la jariñ ndax saa boo jàngee ba dem ba xam ci alquran dara da nga xam ne li la sëriñ bi doon wax mooy lii ndax ci tasawudu subaan la ñuy fekk mu naan wa baadaha la budda min alaati lil baxsi fi lxadisi wal ayaati ka nahwi wal xaruudi wal bayaani wa lugati al arabi wal maani su ko defee yooyu xam-xam di ay jumtukaay mooy tax nu mën a xam ci alquran dara mooy tax ñu mën a xam itam ci sunna dara loolu bokk yi ak jëlbeen la nu amoon yéene tàmbali ko ànd ko ak di ñaan sunu borom tabaaraka wa taala mu may nu tawfiq ba nu mën koo àggale te àggale kook sunu sagoo te ñu dëppoo ceeg sa euh, tawfiq sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullah